ak julli ak ñaanal jàmm suñu yonent muhammad alayhi salaatu wassalaam ñu fàttali rawatina ci jamono bi nga xamante ne ci lañ toll nii nga xam ne ay jàngkat yu góor ak ay jàngkat yu jigéen ñi ngi dëgmal mbir yu ama ama am solo te mooy natt guñ leen di natt ci liñ leen jàngaloon mu di nag ay jamono yoo xam ne bu ci nit ki tollee yu bari mën na koo jafe rawatina ci am ay nelaw yu doy wala lekk-lekk bu baax walla taxaw sax ci ay farataam euh, jullit bi ci lépp loo xam ne mi ngi ciy jàll ci ay mbir lislaam da ko ciy jox ay ndénkaane mu bokk ci li jiitu li nga xam ne dañ ko dénk ki dëgmal lu mel ni ci ay examen moo xam ci jàngukaay yu ndaw yi la yu suufe yi moo xam ci jàngukaay yu digg doomu yi wala bokk ci jàngukaay yu kawe yi wala bépp xeetu euh, nattu boo xam ne dañ ko nattu kiñ jàngaloon ci liñ ko jàngal mbir yooyu kon bi ci jiitu comme niñ ko waxee mooy taqwallahi subhaanahu wa taala mooy wattandiku mbiri yàlla yi subhaanahu wa taala te mooy taxawee ci ay santaaneem te bàyyi li nga xam ne moom la tere mu doon nag loo xam ne dafa làmboo jullit bi ci mbooleem étape bu mu mënti toll ci dundam yàlla subhaanahu wa taala mi ngi wax ci téereem bu tedd bi naan ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب képp koo xam ne wattandiku nga mbiru yàlla yi ci def ay santaaneem bàyyi ay tereem yàlla dina la wutal ab génnukaay te buñ nee génnukaay mooy ku nekkoon ci ab jafe-jafe mbir yi tëju yàlla subhaanahu wa utal ko bunt du yam foofu moom yàlla ci mbaaxam ak teraangam ak yaatoom mu ne mu daldi koy wërsëgal foo xam ne foogewu ko fa woon loolu nag ci xam-xamu yàlla subhaanahu wa lay dellu ndax da ciy feeñ ndax xam bi mu xam nit ki fam ko gën a soxlaa mu daldi ko koy jox bëriwaana ay wërsëg yuy tàbbi ci loxol boroom fekk ne jamono bam ko fekk amaan na am na beneen jamono boo xam ne moo doon gën loolu nag ci kumpa yi yàlla subhaanahu wa taala jagoo ci la bokk kon laaye boobu leer na ci ne yàlla subhaanahu wa taala ngir am la ne fa moom boo wattandikoo ay mbiram mu daldi di jàppandal ci yow mu dellu ba tey moom subhaanahu wa wax ci beneen laaya ne wa man yattaqi llaha yajcal lahu min amrihi yusra képp koo xamante ne wattandiku na yàlla subhaanahu wa taala ci ay digleem ak tereem dina ko defal ab yombal ci mboole mi mbiram te nit ko ne la nga xam ne moom lay sóobu rawatina jullit bi mooy mu bëgg yàlla ànd ceeg moom ci ngërma dem te ci loolu la koy defal ab yombal ba tey borom bi subhaanahu wa di wax ci mbirum ragal yàlla mu bokk ci lenn ci aaya yi nga xam ne ñëw nañ ci gëneelu ragal yàlla mu ne ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا mu ne képp ku wattandiku mbir yàlla yi ci di def ay ndigalam di bàyyi ay tereem te kane ca loolu du ñàkk mu am ay rëcc-rëcc yu muy am foofu yàlla di ko ko dabaatalal ci fanqal ko mbooleem rëcc rëcc bu mosoon am ba pare nag daldi koy duufalal yool bi daal di koy fulandil yool bi kon da gis ci aaya yooyu ak yeneen yu dul ñoom yàlla subhaanahu wa taala di soññ jullit bi ci ragal yàlla di ko xemmemloo mbir bi ragal yàlla nag di ko borom xam yu bari waxee lu mel ni kenn ci asalafu saalix wala ñenn ci ñoom ñenn ñi dañuy naan ragal yàlla mooy bu la yàlla fekk ci lim bañ ragal yàlla mooy bu la yàlla ñàkk gis ci lim bëgg fexeel ba nekk ci lim bëgg bàyyi li nga xam ne moom la bañ kenn ci ñoom mu ne ragal yàlla mooy lan mu ne mooy nga jëfee topp yàlla teg ko ci lay wu bawoo ci yàlla nga daldi ci bëgg yàlla fay la aw yiw mu ne nga daldi bàyyi lu juuyoog ngërëmal yàlla teg ko ci lay wu bawoo ci yàlla nga daldi ci daw daldi ci moy daldi koy moytoo li nga xam ne mooy merub yàlla ba tey kon yooyu mbir la yoo xam ne dafa jëm ci wàllu ragal yàlla kon ki nga xam ne yàlla subhaanahu wa taala jàppandalal na ko mu am tawfeequ jàng ba ñu koy xayma di ko nattu war na fexe góor góorlu tënku ci mbir yi nga xam ne moom moo lal ragal yàlla te bokk na ci mooy dimbandikoo yàlla subhaanahu wa taala ci ñaareelu tomb bi nga xam ne mooy wékk say mbir ci yàlla subhaanahu te loolu ni ko boroom xam-xam yi xamle dafa nekk ñaari mbir ci alquran yàlla subhanahu wa taala mi ngi wax naan wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xasbuh inna allaha baaligu amrih qad jacala allahu likulli shayin qadra yàlla subhaanahu wa mi ngi wax ci laaya bu tedd bii ne képp ku wékku wékk say mbir ci yàlla te mooy nga wakirlu ci moom dina la daldi doy sëkk kon yàlla subhaanahu wa taala mu ko xam ne ci alquran dafa bëgg ñi nga xam ne dañuy wakirlu ci moom wax na ne إن الله يحب المتوكلين mu ne yàlla dafa bëgg ñi nga xam ne dañuy wakkirlu ci moom boroom xam-xam yi ñuy wax ne lii di wakkirlu ñaari ponk la am benn bi mooy nga daldi def li nga mën nga daldi sabablu ci sa kéem kàttan la ca des ñaareel bi mooy nga wekk mbir mi sotteem ak baaxam ak jàppandalam ci yàlla subhaanahu wa taala ngir mu daldi la koy lijjantil sallallahu alayhi wa alihi wa sallam toxal nañ ci moom jëlee ko ci Omar ibn Xataab radiyallahu anhu mu daldi ne law annakum tatawakkaluuna ala allahi xaqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu ximaasan وتروح بطانة أخرجه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن صحيح jëlee nañ ci yonente bi alei salatu wasalaam mu wax ne yéen su ngeen doon wakkirlu ci yàlla dëggi-dëggi wakkirlu ci nam jaadoo dina leen wërsëgal nii muy wërsëgalee picc mu ne picc day suy xëy di dem biir bi day xóot du am dara mu ne waaye buy ñibbisi dina fekk ne biir bi dal dinay fees dell ku ne xam na ne picc moom yorul pik yorul peel yorul oto ndaraan yorul dara ci matériel boo xamante ne bu nit ñi yore la waaye gis nga ko bi mu génnee ci suba gi xëy naaw na daldi wër xool palaas yi nga xam ne xëy na mën na faa am dara mu daldi fay seet ba am yàlla dimbali ko mu daal dëpp biiram fees nga gis sax picc yi dañuy dëpp di jox seeni cuuj yi itam ñuy daldi di jëfandiku kon ki nga xam ne itam jàng la doon def ba année bi jeex ñu war koo nattu war na fexe ba nga xam ne laata nattu yi di ñëw ak xayma yi mu daldi di góorgóorlu bu baax la nga xam ne ci ay bindam day laaj mokkal mu mën koo mokkal la nga xam ne day laaj ab dégg-dégg mu daal am dégg-dégg ba laaj noonu noonu ba nga xam ne la ko war lépp de daal dina koy def te mooy loolu mbir la bu ama ama am solo ponk la bu rëy rëy rëy hmm. ngir mën a tegu ci yoon bu jub lu aju ci lu aju ci wàllu waajal lii di ay xayma kon nag mbokk jullit bi fexeel ba góor góorlu ci jàng bi te mën a am dégg-dégg bu baax ci sa li nga jàng ndaxitam jullit bi ñaari xam-xam moo ko yitteel mooy xam-xamu àdduna boo xam ne ci lay fàggoo lu lew mën koo jaamoo yàlla ak di ci def lu baax ak di ci taxawee ay warugaram beneen bi mooy xam-xamu diine boo xam ne mooy ñoŋal xolam ñoŋal làmmiñam ñoŋal ay cëram tënk leen ci lu baax ba mu mën am ngërëmal yàlla subhaanahu wa taala ci àllaaxira daldi gis nag meññitu loolu ci ajju ci àdduna laata àllaaxira di ñëw kon tomb bi tomb bu ama am solo la te mooy wàllu wakkirlu noonu la làmboo nag mbooleem xeetu mbir yoo xam ne jullit bi def ci dugg dina dugg ci loolu ba tey mu fexe ba góor góorlu moom jàngkat bu góor bi wala jàngkat bu jigéen bi ba mbooleem jumtukaay yi nga xam ne dina ko soxla ci jamono bañ koy xayma mu fexe koo am su ko mënee wattandiku ci lépp lu jëm ci wàllu àbb wala yu ni mel ndax mën na koo indil ay jafe-jafe te dafa juuyoog jël say matukaay kon war na fexe ci lu jëm ci wàllu colkaam mu man mu man cee am loo xam ne daf koy indil jafe-jafe ci wàllu matériel yi nga xam ne ak jumtukaay yi nga xam ne dina ko soxla ci bis ba mu fexe leen a euh, organiser toftale leen ci ni mu koy soxla ak lépp daal loo xam ne dafay ñoŋal mbiram ci yi nga xam ne yoonal nañ ko dàqontewul ak lislaam mu daal di ci góorgóorlu bu baax xam ne loolu lépp day dafay dugg ci lii nga xam ne mooy lu te mooy jël say sabab li ci des nga wekk ko ci yàlla subhaanahu wa taala ñetteelu mbir bi nga xam ne dina jaadu ñu dénk ko ki nga xam ne dafay sóobu ci wàllu xayma mooy mu fexe ba di góorgóorlu lool ci lu aju ci wàllu ñaan góorgóorlu ci lu aju ci wàllu ñaan yàlla subhaanahu wa taala mi ngi wax ci téereem bu tedd bi ne wa ida sa'alaka ibaadi anni fa inni qarib أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون يلا سبحانه وتعالى منه يو ينتبه su ma la sama jaam yi laajee ci lu aju ci man man dey ku jegeñ laa damay wuyu ki nga xam ne woona ma ki nga xam ne ñaan na ma ma jox ko mu ne waaye nag nañ ma daldi wuyusi si nañu topp samay mbir tënku ci samay santaane bàyyi samay tere ngir ñu daldi tege ci aw yoon bu jub euh, yàlla subhanahu wa bari na ci alquraanul karim lu ñuy laaj yonent bi mu daldi ne yow yonent bi suñ la laajee nangam waxal suñ la laajee nangam waxal ñi ngi lay laaj ci nangam wax leen tontu leen te mooy ay laay te muy ay laay yu bari yu rot ci alquranul karim waaye ci laaya bi dong lañuy fekk yàlla subhaanahu wa taala mu ne yonent bi suñ la laajee nangam man dey nangam mu daldi dindi baat bi nga xam ne daf koy wax ne waxal lenn ci boroom xam-xam yi di wax ne loolu dey yàlla daf ciy wane jege gu mu jege moo tax dugalu fa sax baatu waxal ne ku jege laa waaye def ne man dey ku jege laa ak yam ca teg kon yàlla subhaanahu wa dafa bëgg ñu koy ñaan ci laaye bi wone na ci ne ku ne mën naa ñaan su fekkente ne làmboo ak teggini ñaan bokk na ci teggini ñaan mooy lekk lu dagan naan lu dagan sol lu dagan tënku ci lu dagan loolu buñ ko seetee dañ koy fekk ci xadis bu yonent bi alei di leeral waa jooju nekk ci tukki bu sori pënd karaw gi jaxasoo mu daal di tàllal ñaari ténqam jëmale ko ci yàlla subhaanahu wa taala mu daal di wax naan yow sama boroom yow sama boroom te boobu day mi ngi fekk ne la muy lekk dafa xaram la muy naan dafa xaraam ñi ngi ko nandal ci lu xaraam ana kooku naka la ko yàlla di mayee li mu ñaan kon nag bokk na ci ñaan mooy nga daal di bañ a làmboo ak loo xam ne dafa xaraam kon yàlla subhanahu amul intermédiaire digganteem ak jaam bi nga xam ne bëgg na koo ñaan yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mi ngi wax ci benn xadis ne mooy bi muy yónni Muaz ibn Jabal ca Yaman daldi di koy ne bokk na ci yem ko dénk mu ne ko wattandikul ñaanu ku ñu tooñ ñaanu ku tooñ digganteem ak yàlla daldi koy nangu dara doxu fa te mi ngi doon jëm ci ay yéefar kon ñaan dafa jaadu bépp jullit mu daldi koy laxasaayoo làmboo ba fu mu toll rekk di ñaan buy ñaan ñaan yàlla subhaanahu wa taala dong bañ bañ cee bokkaale ak keneen koo xam ne ku mënti doon la kon ki nga xam ne bëgg na waajal li jëm ci wàllu xayma yi bokk na ci yooyu mooy mu fexe ba di tàllal loxo yàlla subhaanahu wa taala di dàkk waxtu yi nga xam ne ay waxtu yu yàlla subhaanahu wa ubbi la di ci feddali nangu gu muy nangu ab ñaan mu bokk ci yooyu te muy jamono bu tedd jamono bu baax yonent bi sallallahu alayhi sax am ci ab jamono boo xam ne daf ko cee wax ne dafa am barke jëmmi jóg ci jamono boobu te mooy li rot ci xadiisu yonente bi alei salaatu wasalaam bi muy naan bu ñetteelu xaaju guddi gi jotee yàlla subhaanahu wa taala dafay wàcc te mbooleem boroom xam-xamu jullit ñi ci ña nga xam ne jiitu nañ ak ña topp ci njub dañuy wax ne wàccub yàlla day nekk wàcc bu yelloo ak màggaayam ñu ne melokaanu yàlla yi duñu wax numu waaye dañ koy gëm kon xadis boobu mi ngi ne yàlla subhanahu bu ñetteelu xaaju guddi gi jotee dafay wàcc ba ci asamaanu àdduna mu tudd fa ñetti mbir yoo xam ne tax na mu wàcc yu bokk ci yi tax mu wàcc mooy day naan ana kan moo may woo wuyu la ana kan moo may ñaan ma may la ana kan moo may jéggalu ma jéggal la ci jamono boobu dina baax lool dina am solo lool ki nga xam ne dafay waajal lu mel nii daldi ci dékk yàlla subhaanahu wa loxo ngir bokk na ci yooyu mu daldi koy leeralal dënnam leeralal ko xolam leeralal ko gis-gisam ba la nga xam ne jàng na ko te wattu ko te jéem yàlla subhanahu jàppale ko nag ci li nga xam ne moom moo des dëgëral ko ba la nga xam ne moom lay bind mu dëppoo ak tontu laaj ya nga xam ne ñi ngi ko koy laaj kon kooku war na fexe góor góorgóorlu ci tomb bi tomb bu am solo bi nga xam ne moom mooy ñaan ñeenteelu mbir bi nga xam ne bu ama am solo bu ñuy dénk ki nga xam ne mu ngi waajal lu jëm ci xayma gu ñuy xayma xam-xamam mooy teey ak dal mu fexe ba ànd ak fexe ba ànd dal rawatina jamono bi nga xamante ne laaj yi ñi ngi teew ci moom jële nañ ci Ibn Abbas mu nekk xadis bu wér yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon kooku di al ashaj mooy abdul qays mu daal di koy ne inna fiika xaslatayni yuhibbuhuma allah alxilmu wal ana mu ne ko yow dey am nga ñaari jikko yoo xam ne yu yàlla sopp la mu di lewet akub dal lewet akub dal kon ki nga xam ne soobu na xayma yooyu war na fexe ba jikkoo woo ñaari jikko yi ngir yàlla subhanahu wa taala mën koo jàppandalal li nga xam ne moom la bëgg bokk na ci yu mel noonu mooy fexe ba laaj yi nga xam ne jox nañ la ko nga jàngat ko bu baax a baax a baax ba mën koo xàjjatle bokk na ci xàjjatle boobu mooy fexe ba tànn la ca gën a yomb la ca gën a gàtt ay tontu gën koo leerle du laaj ay xalaat yu bari gën cee ëpp ay tomb nga daldi koy jiital lépp loo xam ne nag am na jafe-jafe nga daldi koy faranfàcc ci aw këyit xool ko càmbar ko ba mbaax ba xam ci dëggantaan lañ la ciy laaj ngir nga mën a tontu tontu bu jub dëppoo ak lañ la laaj kon loolu tomb la boo xam ne jaadu na nit ki mu daldi ci bàyyi xel bu baax a baax a baax dina dugg ci loolu ba tey ginnaaw bi nga xamante ne tontu nga tontu yi la laaj lépp nga daldi saytuwaat bu baax a baax a baax rawatina su la desee ab waxtu ab diir nga saytuwaat bu baax a baax a baax li nga xamante ne tontu nga ko ci ay laaj bañ a gàcc gàttañlu ci benn tontu bu mënti doon loolu dina la dimbali ngir su dee am na loo fàtte woon wala loo juumoon te nga am kóolute ci sa xol ne lii danga cee juumoon nga daldi koy mën a yéwénalaat ngir mën a jàll ci yeneen yi topp ko benn par benn ba ci sa li nga am ci waxtu yépp daldi ginnaaw saytuwaat yooyu nit ki di def ci li nga xam ne jot na ko tontu ci ay laaj dina jaadu ba tey ci waajur wi nga xam ne am na mbokk wala doom boo xam ne dafay dëgmal yu ni mel mu di ko encouragé di ko soññ di ko bàyyiloo xel ay pakk yoo xam ne mën na ko gaar bokk na ci pakk yooyu nga xam ne mën naa gaar ki nga xam ne dafa bëgg a tàbbi ci xayma yu mel nii mooy mu ñàkka ragal yàlla ñàkk ragal yàlla ci pakk yi gën a mag ci la bokk bokk na ci ñàkk ragal yàlla mooy di jëfandikoo yoo xam ne dafay dugg ci buntu lu araam te lu mel ni di xool kayitu jàmbur wala di jënd li nga xam ne mooy ay Euh, résultat yu baax wala di dem di jënd diplôme bi walla di ger walla yu ni mel yooyu yëpp dafay dugg ci buntu ñàkk ragal yàlla yonent bi alei salatu wasalaam waxoon na ne man xasha fa laysa minna man xashana fa laysa minna mu képp koo xam ne wor nañu képp koo xam ne triche na kooku de bokkul ci ñun ku ñu ñu wor bokkul ci ñun kon loolu dafay nekk loo xam ne du dugg ci buntu ragal yàlla ñaareel bi mooy tënku ci sabab yi rek bàyyi li nga xam ne mooy wàkkirlu ci yàlla wala boog ñàkk tënku ci sabab yi ba pare ne danga dénk say biir yàlla subhaanahu wa taala loolu dafay dàqonteeg li ñu njëkkoon a tudd ba ca topp mooy nit ki naw li nga xam ne moom mooy li mu jàng woon jàpp ne fi mu ne ni dégg na ko déggin boo xam ne tey kenn waru ko cee raw kon war na di tënku ci ak di bàyyi xel ne la xawla wala quwwata illa billah te baat boobu bokk na ci li ko borom xam yi di firee mooy pexe amul kàttan amul mën-mën amul ci topp yàlla ludul dul ne yàlla koy maye waaye amul dara lu la mën a fanq lu mën a tënk ci nga bañ a tàbbi ci mooy yàlla ku dul yàlla kon nit ki war na fexe ba di dimbandikoo borom bi subhaanahu wa gëm ne lépp lu mu def ci ay pexe bu ci yàlla àndul yëf yi du sotti waaye itam gëm itam ne warul doyloo boppam ci benn mbir xam ne daal yàlla moom moo ko mën a defal jàppandal moom moo ko mën a defal tawfiq kon dina jaadu kon ki nga xam ne mi ngi ci yu mel noonu mu bàyyi loolu xel bu baax a baax a baax bokk na ci yi nga xam ne ba tey mën na ko gaar indil ko jafe-jafe mooy mu jàpp ne moom daal war na gaawantu yëf yi def ko fexe ba njëkk génn wala yu ni mel kon mën na fexe nag góor góorlu jëfandikoo waxtoom ci niñ ko ko mayee def li nga xam moom lañ tuddoon euh, sànq te mooy lu jëm ci wàllu saytuwaat këyitam ba mu nekk loo xam ne lu mucc ayib la du tege ci yoon la ginnaaw loolu lépp dey ki ñuy xayma war na bàyyi xel ne ginnaaw bi mu defee ay kéemam def li mu mën li ci des mu wékk ko ci yàlla subhaanahu wa taala na xam ne day lépp lu ko yàlla dogalal loolu mu muy gën ci moom ndax bari na ñoo xam ne dañuy am jafe-jafe ci ay poñ yu baax ba ñàkk jàll ñu daldi xalab seen bopp jàpp ne xanaa yàlla da leen fàtte ci ñenn ñi wala musiba ban moo leen dal wala dañ leen a takkal ay ay mbir yoo xam ne day tax duñu def dara loolu lépp day dafay juuyoo ak nangu dogalal yàlla subhaanahu wa bëriwaa na koo xam ne dafay am euh, at mi daal di génn ci examen bi ginnaaw gi ñu daal di koy iñaane mu am ay jafe-jafe yu bari yoo xamante ne du xam fan la koy jooytoo kon ki nga xam ne daal def na la ko war lépp tënku ci li yàlla bëgg bàyyi lim tere ba examen yi jàll ba mu def ko ci lim ko war a defee lépp kon na xam ne yàllaa ko dogalal foofu mu mujje te du ko tere mukk mu yaakaaram yekkiku ci mu mën a am diplôme boobu ànd ak ne yàlla subhaanahu wa dina ko fay aw yiw ndax nam waajale yëf yi ak ñaan yam doon def ak yooyu yëpp yàlla subhaanahu wa taala du ko neenal kon inchaa allahu tabaraka wa dañuy taxaw fii di ñaan yàlla subhanahu wa taala képp koo xam ne mi ngi dëgmal examen yi mu leeral dënnam leeral xolam sàmm ko ay cëram te mu baaxee ñu nekk ñoo xam ne dañuy tënku ci ay mbiram wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulih